képp kuy séentu gan gu mu namm te dib jullit bu fekkee ab xolom a ngi dundu euh, mbégte mi ngi koy bëgg a yóbbu fa sori ndax gan gu nit fonk faw waajal ko fa jóge moom jekk na ba jóg na bis bu set ñu gën koo jege euh, muy weer woo xam ne nag ku ci dib jullit tab xolam di dund ba mu fas ko yéene taxawe genn jaamu la jaamu yàlla ci jaamu yàlla goo xam ne li ñuy wax taqwa ku ko ci amewut mënu koo amee feneen ñaareel ba jëfe ndigalul suñu boroom ak not bakkan jullit bi it man cee waaj ba ëllëg ki si birit mu mën a jox joxe ngir yàlla mën a bàyyi ngir yàlla ndax ku mën a bàyyi ak lekk te soxla ko ngir yàlla mën a bàyyi naan ngir yàlla te yaar yooyu lii dundal nit dara jiituwu leen ca war naa mën a joxe lu nekk ngir yàlla waaye it eh, dana tegtale ne lu boole jullit yi lu yomb la rawatina su yàlla santaanee ndax danañ yendu fi barab ba ngoon jot xel du xalaat indi lu ñu fay naan wala di ko fa lekk foofu takk ba wu ñu fi def ba kenn du ko xalaat njàngat mu réy ngi ci ne ëllëg si biir it jullit yi lu ñu bëgg bu ñu ca defee noonu ñu defoon ci biir koor gi ci bennoo ak bëggante ak ku mbokkoo ak miin not bakkan seen diggante ak yàlla te yàlla rek tax bu dul woon dara itam loolu rek jar na ko kon ab jullit bala moo dugg ci koor nga xam ne ndabam lay yor bëgg suñu borom tibbal ko subhanahu wa taala yàlla nu ca boole na raxas ndabam bam set wicc raxas ndab la nag mooy tuub lim nekkee woon weer yi ñu génn te moo gën a xam ne du noona mu dañ ba set wicc fas yéene buy dugg ci koor gi fekk mu doon ko set wicc koo xam ne bu koor xoolee xam ne feekat set na mën na fa dugg mën na faa jariñ li ci dolli ko it ñu bañ koo jàppee aada dangay dégg ku naan yaa nga waajal koor geem mu ne bu baax loo koy waajale mu ne fii mu toll dey ganaar yi doy na sëkk gàtt yi it doy na sëkk waaye tàndarma it bàyyiwuma ko gannaaw ak ya ñuy àndal ñoom li ma bëgg a wax rek mooy lekk ak naan cala de cala nag ndax ku dog dana ko soxla waaye koor du aada ji ñuy waajale yañ daan waajale yeneen ngan yi kese kese kese kese kese ndax moom diggante nit ak yàlla la